koy jëfee ñu ngi ciy liggéey di ko taal suñu loxo di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal ndam fi c'est fi ñu tàmbaleeg papa la ñuy tàmbaleeg yow ah yow aussi nga bis bi nga toogee ba ñu indil la avance su Papa Sow nga xool fi nga tàmbalee bu njëkk dañ doon wax comme HBK wax na ko dañ doon wax naan est-ce que dina yegg ci kaw tey ñu indi la avance su Papa Sow ban jàngat nga def ci sa carrière ban jàngat nga def ci sa bopp. waaw li may wax rek mooy santaat santaat jaamu gën gi bi di sant sama sëriñ sëriñ sant samay mbokk séeréer le aw foolu séeréer nuwaanaa le aw séeréer mi kit mam simnam langa combat fani ke combat yo séeréer a ref nu sik taam teen dam teen a paax Modou mm-hmm. papa dund ba ñu ne la yow ak papa yéen a war a bokk géew loolu rek loolu rek daale la mm-hmm. waaw loolu rek daali la daali mooy ndam la. ndam la ndam la waaw le ngay bëri ak moom. waaw parce que moom champion la champion boo xamante ne ci qualité yëpp qualité yëpp bu la nit ñi toogee dañu naan la Papa Sow lañ ko si naw si yar si lépp. ci mën a bëre ci mën a ci mën a xeex ci la ci làmb. waaw ci jiitu ma ci Papa Sow yaakaar naa ne sama premier combat sama jour premier combat jour boobu moom ci jour boobu la doon bëre. ku mu ci doon bëre bàyyi ma ñëwaat. tonnerre tonnerre tonnerre jour mooy sama premier combat ñu bokk bis waaw lu jiitu ko loolu nag sax supporter sax def naa ko man jënd naa sama xaalis ba temps dagg tigee seetaan Papa Sow mm-hmm. waaw mais lii sport la ñu nekk si si ñoom lañ ko gisee ba yàlla def tey ñu ñëwaat bis ñëw ñu war a ak ñoom kon mënuñu lu dul ñun dañuy yaru rek waaw ba bis ñu def lu ñu def. def lu ñuy mooy. waaw mooy ñun ñu wane suñu caacaay bi nekk suñu. waaw <laughs> da nga indi caay-caay. waaw. Uh-huh. wane sa caay ci Papa Sow mi nga xam. gis nga ko boo déggee ñu ne la caay-caay uh-huh. mooy mbër man man bu may bëree man man man contact sax bu may contact xàmmeewu ma xam man kafuma hmm. réewu ma damay man li sama liggéey laa def waaw mais nii ñu toog di waxtaan nii à tout moment chaque jour rek ya dafa am loo xam ne ñun dañ ko war di éviter suñu diggante ak moom waaw ñun buñ ko si fekkul moom duñ si mus a fekk. Mm-hmm. xaw ma dégg nga ma. Mm-hmm. parce que qualité yëpp mu ngi ci moom waaw. bisu mm-hmm. qualité yëpp. qualité champion yëpp. yëpp ngi ci moom. te ñun ay ndaw lañ dañuy jàng amaguñu expérience bi. combat bu bële bi ngeen koon bëri te mu yàqu bi mu yàqoo yow ban état d'esprit nga ñibbee seen kër. non mooy li la wax rek wax naa ko Modou Mbaye nee naa ko dama meroon. daa meroon da nga meroon. xam nga mer muus laa dëkkoon te kenn mënul mer ba pare muus. Hmm. boobu laa amoon meroon naa amoon naa lu ma métti parce que affaire bi amul mais tamit waroon naa am xel ne yow yàlla suñu borom moom mooy tege natu moom mooy moo doog moo dogalee noonu waaw mais ñun ay jeunes lañ rek neexuñu mais tamit yàlla defaat nañu tëgaat ko. waa jàmbaar ñëw Mansour ñëw taxaw suñu diggante bëgg loolu am. Mm. mais loolu dañ si dañ si taxaw moom. Mm. man pare naa 1000 pour cent pour taxaw si mu am papa moom te pare na si 1000 pour cent pour mu am. Mm. kon yal si yàlla jàpp rek képp koo xamante ne lu koy yàq wala lu koy delloo ginnaaw ñun xaaruñu la. mais booba pare woon nga yow. kan man. Ah. bi papa Sow di. yow man yow laay laaj ñu pare woon naa yow. <laughs> yow ba nga ma gisee yow pare nuroo ma la ko pare. <laughs> damay laaj de. ah non pare woon naa ah pare woon naa 1000 pour cent. baax waaw physiquement. nice. Mhm. mais combat bi dafa taxaw. HBK depuis bi mu taxawee. nit làmb yi ñu bëri ko dékk micro. Papa Sow Siteu mun la Papa Sow dàq bëri Siteu. waaw. yow waaw waaw léegi yow loolu loo ci wax ban jàngat nga def si loolu. waaw jàngat bi amul amul amul jàngat loolu moo am. Papa Sow moo dàq Siteu bëre. nangu nga ko. nangu naa ko mil pour cent. mais nangu bëre ku la dàq bëre. waaye yow dégg li ma la wax. non da mbalak wala. kan. yow. waaye lan lay mbalak man bégaay man fan laa mun a ban territoire laa mun a taxaw ne man maa dàq Papa Sow bëre nit gëm ko. kon du tax ngay bëre ak moom. waaw sama gëm-gëm sama fit sama njàmbaar li neelaw ci man te nit xamu ko te ma xam ko sama bopp. Mm. waaw moo tax may bëre moom. <laughs> daam loo bëgg a wane ci Papa papa dégg nga loolu. dégg naa ko baax. Mhm. te ci yow la war a jaar te ci yow la war a jaar te yow la bëgg a lii li nelaw ci moom. non yéenam lay wax. Hmm. yéenam lay wax waaw. ah buy wax yéenam nag <laughs> moom laa la wax ne yéenam lay wax. <laughs> non waxuma sama yéene de sama gëm-gëm laa wax. Ah, mais damaa wax li ne dama ne. Mhm. territoire bu ma taxaw. ne man ak Papa Sow man maa ko daa ko bëre. man loolu kenn du ma gëm te man sa nangul naa ko sama bopp jëlal lépp yaa ma daa ko bëri parce que champion nga papa lu ne def nga ko salaam loolu nangul naa la ko mais dama la ne le 6 le 6 waaw boo mu ne na la leer da ngay xare ji waaw bu da ngay xare ji bu la ngay xare xam nga dama fekk may xare. ba nga fekk ma ci biir xare dama laa ne le 6 laa wax. dangay ngay si. damay xare dangay nga siis naa préparé dañuy xare maa ne danga maa fekk ci digg xare bi. wax naa la ko léegi nee naa la champion nga ci boor yëpp. non waxatuñ loolu. waxatuñ loolu dama nangul loolu xam nga loolu dama naan la merci jërëjëf. ndax ñàkk ki ñaan mun tawee weesu loolu. Mhm. xool nit ba mu baax nga ne ko am nga lii mën nga lii. Mhm. vraiment ça m'a fait plaisir. wax dëgg yàlla. merci wax dëgg yàlla ça m'a fait plaisir. waaye xare bi nag waaye xare bi. waaw ma ne ko daf ma fekk ci toolu xare. Mhm. xëy na daf may ci rek. Ah. waaw ku mu def ma cee fekk rek. Mhm. alhamdulilah. fi nga koy woo fi nga fa nga ko fekk nee na dàqoo koo xare gënoo koo bëgg xare. waaye déggoo li ma la wax loolu kay jarul teen baa ngi nii kay root kay. Ah. ku ne na nga yor sa paak rek. mbokk yi Siteu ak euh, Papa am na liggéey boo xamante ne nii ñu ngi ko ci doon def bi bi ginnaaw bi ñu nee deuxième combat bi taxawaatoon naa ci arène nationale bis bi Fils de la doon sëgg ak nga xam mooy góor a amoon na waxtaan bu am solo boo xam defoon nañ ko ak ñi xam ñooy amateur ñoo nekk ci làmb mbokk yi ñoo ànd ak yéen ak sunu réalisateur ñu dem seetaani ko ñëwaat. Papa Sow Siteu ci làmb la fekk Papa Sow. waaw. Papa Sow def na ci làmb lu ne. dem na équipe nationale olympique. bëri na bokk na ci mbër yi ëpp combat wala yi ëpp victoire tey mu war a bëri ak xale bu nekk ci yoon. di ñëw. Papa sànni tàccoom lay def. sànni tàccoom. Papa Sow sànni bi mooy sànni tàccoom amul amul leneen donc boo nekkee doo mi muy nekk sa sànni tàccu yaakaar naa victoire rek ko si arrangé. Siteu mi ñàkk ci digganteem ak guy gi nag. Siteu mi ñàkk si digganteem guy depuis 2018 ba léegi bëriwul Siteu moom moom bu ñu ko daanee. dina amaat sens bu bëre mais buñ ko daanee na xam ne xale yi dootu leen mën a bañ il faut mu Siteu bu daanee deuxième division lay wàcc. il faut mu wàcc ba rek ñi ngi. deuxième division loolu muy bañ il faut mu am. delloo ziar. amaana sax ci ñiy waaj combat bi may bëgg a wax ci nga bokk muy Siteu ak Papa dafa fekk si ci làmb Papa Sow uh-huh. Papa Sow def ci làmb lu nekk bokk ci mbër yi ëpp victoire wala yi ëpp combat uh-huh. Siteu doon xale boo xam mi ngi ci yoon di ñëw uh-huh. ma am ku ma laaj léegi mu ne ma Papa sànni tàccoom lay bëree Siteu ñàkk na contre guy gi mais Papa moo gën a jege ci sànni tàccoom Papa Sow bokk na ci mbër yi ëpp lu ñu bëre ci làmb ji mm-hmm. ñu ko ëpp victoire bëriwul mm-hmm. kon amatul lu muy prouver mais day dëggal place nag ndax dafa sos équipe bu bees yàlla def ci barke ñu tegele ay ndam mu mu mag leen kooku day bëgg am ndam pour wane ne place am ci équipe bi mu sos kon jëlul Siteu pour daanu Siteu nag su mënta daan Papa bu yóbboo witi leneen ndax li ñuy xaar ci moom waa jàmm gën di ko yaakaar ci moom ak équipe drapeau bi lamb la boo xam ne bii jàpp naa ne comme li fi amoon nii dañu ñaan yàlla mu bañ a fa amaan rek ñoom ñaar ñu ñëw bëre que le meilleur gagne na combat bu neex la war doon parce que ñoom ñaar xiifante nañu xiifante boo xam ne bi jàpp naa ne bu arbitre soufflé ah di nga gis leneen parce que bu fàttali kii pied droit lay teg mais di door a gauche kii teg pied gauche di door a gauche droite teg Papa Sow ku bëre moom da nga jël gauche droite naanaan la boo xam ne ku lu fidiri la si te nag mbër la boo xam ne xale la boo xam ne ku bëgg gëm boppam la naa ne adu suuflee ku mu daje rek jàpp naa ne ci kàttu dafa gëm ne moom mooy daan ma yaakaar ne combat boobu di nga gis bëri di nga bu nar a neex ndax Papa Sow du woon mook Siteu mook ñoom nees la woon ak ñoom Baye Mandione te xam nga ne euh, Baye Mandione ak euh, nees Siteu seen supporter la woon te su Siteu demee bay bëreeg Papa Sow lenn rek laa koy wax na fexe ba Papa bu mu doole Papa Sow Modou Mbaye Papa Sow Siteu mu nekkoon loo xamante ni nii depuis depuis depuis ni ñaa ngi ci nekkoon di wax ngeen dégg mbokk yi te ñooñu nga xamante ni ñooy borom xam-xam yi kàddu yi ñu ci wax muy kàddu yu am solo Mansour Ba Papa Sow Siteu mu doon combat boo xamante ni nii àdduna yëpp ñu ngi koy waxtaanee ñëpp a ngi koy coow jàmbaar production moom moo ko tëgg ñu nga war a ñëwaat ren ci sa ouverture saison jox ñu combat bi jàmbaar production fu mu toll ci wàccaay. waaw moodu comme nu ñu je pense waajalee combat Sokh ak Franc mhm. parce que làmb ci wàllum promoteur mën nañu ay gan lañ ci mhm. mais ci wàllum seetaan làmb dem làmb mhm. je pense que man bu may am ay cinq ans en 1994 ay 93 la sama papa doon ma yóbbu làmb donc ma yàgga a seetaan làmb trop topp ko mu nekk suñu sport national nag boo xamante ne tout un chacun waruñu si nourrir benn complexe ku nekk ak li la yàlla séddee yàlla daf ñu séddee ñun làmb mu si sport national